Toujours dans votre actu du jour de ce 4 septembre 2024 suñu fa jógee dañuy dem seeta ji le journaliste Mouhamed Diallo bu Seneweb dafa mel ni mer ba futta la def ci kii nga xamante ni premier ministre ginnaaw sortie yi nga xamante ni def na ko récemment te tegul dara ci loxo sénégalais yi nañ ji Mouhamed Diallo dellu ba pare premier ministre boobu ba léegi mu wax dinaa wax su ma waxee nangam nangam dinaa leen wax boobu ba tey. te waxoo ko saa su génnee seetloo saa su génnee annoncé na su ma waxee naa ne was état bi li fi nekk naa ko seetloo lool. Mm. saa su jëndee wax lool mais kañ la koy wax xàcc bu yàgg bi tamit sëñ bi bu yàggee nag dóoral wala nga bàyyi xàcc bi loolu tamit foog ñoom tamit ñu conscience ni nga nit. saa mm. soo ko woowee wax ko dara doo ko jox dara woowaat ko mu yaakaar ne ko doo ko jox dara mais à la longue boo ko woowee sax dootul ñëwati. Mm-hmm. il faut que de dire que ñu dem dans le concret ñoom ñoo yor nguur gi nañ gouverner. noo yor nguur

projet de loi bi ñu ñëw à l'aise jël seen temps de parole déroulé. Mhm. amuñu lu ñuy perte parce que joxu ñu leen nguur du leen laaj bilan du leen laaj dara. opposition dafa neex ñoom dafa ñu xamné ne yoon nguur gi ñu bàyyi taxawaay opposition bi biñu taxawé ni mhm. ça marché dans l'opposition mais foo ñu xoolaat taxawaay. le président Diomaye man xaaruma ko woon fii. Mhm. le président Diomaye man xaaruma ko woon fii. son premier ministre Ousmane Sonko na bàyyi coow yi saw yi nga xamante ni aussi ku min se xulo yablo aussi bu nekké dafa am mu wara wa sénégalais naka wax la motion de censure dina si peut-être que ce sera l'occasion pour que mu Sénégal li mu mhm. mais waaj bi dafa yag xati bi daal dafa yag lol te xati bu yag na bo moytul. sa loxo tok mhm. waaw sa loxo day tok te sénégalais sax bo moytul ba xati xati yag yo bala ngay dur sax du len fa fek fa <laughs> kon nen nen doxalee noonu. je pense que li on en avait pas besoin kon ñoko ko déggandoo muy le journaliste mohamed Diallo nek fofu ci sene web dafa melni ka dal tay gaay gars nañu dafa yeewoo du gauche ndaxte ku nek xam na ni que daal ci anticorps yi la bokkoon ci ñu doon défendre ni nga xamanteni moy premier ministre di défendre projet PASTEF dem nañu bañu bolé ko ci journaliste yi nga xamanteni manam ay journaliste pro pouvoir lañu ay journaliste PASTEF lañu ndaxte gis nañu bi ñuy journée sans presse ñom ñi di sene Seneweb bokkuñu ci won dañ ci démarquer won 5 ñi nga xamanteni ni bokkuñu ci won dafa melni tay tey dañuy jël sen mal à patience parce que kat dal na ci premier ministre nee na chaque jour premier ministre su génnee daan su ma génnee dinaa wax fan yi dinaa wax fan yi dinaa wax comme ni ko waa ji waxee barki démb à chaque fois ñu wax leen benn programme dañ naan je vais prendre des mesures je vais prendre des mesures kañ la ñuy jël mesure kañ la ñuy ñëw kon dafa mel ni Mouhamed Diallo jamono ji amatul patience pour toog déglu leen mi ngi xaar daal pour que à chaque fois que suñu génnee nañu del dara teg ko ci loxo ne ni waaye toog di gëmloo ne ni fan yi ñëw dinaa génne ay dossier, fan yi ñëw di ngeen gis nii fan yi di ñëw di ngeen gis lii fan yi di ñëw di ngeen gis lii barki démb lañ ma wax lii barki démb lañ ma wax lii dafa